kii mooy dukure waay kan kii mooy dukure waay yéen kii du dukure ah kay du ma sandoku waay ma tanta ma kan oustaz Thiam bi na ngeen def Thiam Thiam Thiam Thiam wallaay eh, maa alhamdulilah ni ni ngi ni ngi ñu ngi ci affaire yi di rek dëgg la la ngeen ñu tegoon rek xam nga nun noom mhm. eh, ci diine l'islam mhm. ak eh, ci alxuraan lépp lu ñuy të wala lu ñuy jaaxal dañuy daw ñu ci yéen mhm. ndax yéen yàlla ñoo moo nu boole ak ngeen ñuy gindi di di leeral suñuy gët di ñu effacer lii nga xam ne mooy poussière yeeg yooyu ñu mën a jaaraat suñu yoon jëm suñu borom euh, du nga bu xamee lu ko war dundam day neex hmm. te yow hmm. lii nga ma defal tey si bésu weeru koor gi hmm. ñun ñoo xam ne ñoo fi taxaw yëruntu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam coy ku ko ku ko yàgg wax na nga nga bënni bët waaye nag dama lay ñaan de tuuti rek ma jooy tey dama ko ma ko foofu dégg nga euh, yàlla dafa sàkk jaam ñi pour ñu dimbalante dukkure yow xam naa ne sa loxo do sa gannaaw rombul sax fii oustaz waaw waaye comme que man dama ne si jàkk ji di dimbale nit ñi ak jaamu yàlla di leen jiite si waxtu juróomi mhm. nga éviter man ndogu mhm, mi ngi noonu joxe ñam. yaa jombe. macha allah yaa jombe waaw. a si jàmm ba. Oustaz Thiam niki tey. Thiam imam Thiam moom mooy. mooy soxna si mooy awa buuru kër mooy awa mooy awa allah defar nañu sos yëpp. waaw waaw waaw waaw waaw du ko de ah, waaw waay yëpp a ngi ci biir. Ah, waaw waay ah, yaa ngi woon fu solo. lii lu baax la. Hmm. gis nga joxe ñam. Hmm. si ci weeru koor. Hmm. daanaka dana fàq say bàkkaar depuis ba nga nee xale ba fi nga toll nii kun joxe ñam lii nga def tey xamoo ko. wallaahi maa ngi lay ñaan ci yiw bi. Hmm. yal na nga ma ci wàlli. waaw ñoo bokk. danaa xamoon ne jamono yonent bi saa bay dañ ko daan ci ak mbaax. sallallahu alayhi wa sallam hmm. mu ne. sallallahu alayhi wa sallam. ah macha allah.

walum sport culture santé njàng mi économie ay xibaar yu wér mengok jamono téléchargé leen nous application D221 live TV Radio ngeen mën sétane seetaan suñuy émission yi daw ci suñuy chaîne radio petit ci suñuy chaîne de télévision suñu application mën ngeen ko fekk ci Play Store petit Apple Store fep fi ngeen mën a nekk ci aduna ay xibaar yu wér te leer jamono yonent bi Seydina Aline jallaaw moo jallaaw jege woon lool yonent bi nag hmm. defoon na bu weeru koor waja jot hmm mu demone dajale ab dundu hmm. boo xam ne ci ñetti fan la mat da man dañu nodd non de waaw waaye nak menen ko ne da xamna solo lol de ma mos rek dag ci <laughs> de sëñ bi <laughs> nan mos leen tan ma rek waaye neen rek ah, <laughs> nanguna rek ko ne rek xana le ma tëj léegi incha ci hmm. si si loolu ba mu dajalee ñetti euh, loo xam ne mooy ci ak dépenses jamono ñu tolu ni Hmm. ci wàllu dugub wala wàllu mburu mu méngoog ñetti fan. bu jëm ci wàllu dund. mu ñëw voilà. Hmm. ba mu ñëwee nag jox ko soxna si ne ko nag sa ñetti mbir a ngi nii nag. Hmm. ñetti fan yëpp bu ma laaj dara ci misaal jamono ji ñu toll. wallaahi. ah ci dog di jot comme nii rek. mu defar ba mu très bien. indi seet naa leen teg ko. sallallahu alayhi wa sallam. ba nag am koo xam ne yaayam dafa feebar te moom la am. ñu di sàkku ndimbal seet naa leen jël yëpp jox ko na ko dem. Oh! duñu ay nit ñooñu dàqoon jëf fuuf. waaye noppeegul de. Hmm. sa beneen suba mu defaat la même chose defaraat messager yu baax yëpp ingrédients yi comme nii soxna ci def. Hmm. teg. Hmm. waa ji génne prison ñëw rek. xam nga ku nekk prison moom yaa ngi gën a xam. waaw da ngay xiif da ngay mu ne kër gi jàpp naa ne ci waay saa ba yontu lañ bokk xaama dugg sàkku ndimbal. Ah. mu dugg laaj seet naa leen jëlaat mbiree na ko coppet na ko am. demal sa wërsëg la. allahu akbar jeexagul de allahu akbar <laughs> jeexagul de ku leen ku leen mos a tudd rek eh, daal daal hmm. loxo jot sa ñetteeli fan ba ba mu ñëwee ñetteeli fan ba waaw ndaw si defaraat lu baax rek comme tatarkal la fotu barke gis nga dañoo sóob nii rek <laughs> dañoo rek tatarkal la àddina amul hmm. solo ba mu ñëwee ne tëll buntu ba yàlla da ko ñàkkaloon nag hmm. muy sàkku ci ndimbal ci ñooñ saaba yonent bi mooy damay bëgg a wut lu ma ndogoo sallallahu alayhi ko seet naa li na cët palaat ba lu cee baax yëpp na ko am yàlla jox la sa wërsëg du nooy nit du nooy ah, hmm. dama lay doog <laughs> ah, billahi ah. moo fekke woon jamono jooju hmm. man li ma métti sama àdduna mooy hmm. li ma fekkee wul jamono yonent ba ba ñu def xare ba dar oh. xare ba dar su ma ko fekkee woon te laay bokk oh, macha allah ma nekk Aline wala ma nekk keneen wala ma nekk kuy may ndox man naa bokk ci champ de bataille bi rek oh, boo ko waxee gëm naa ko moo tax ki joxe ndogu li mooy mooy kan us gi Seydina Aline Aline moom wallahi xool bi mu am naa Oh. mënees nama maa jël ndogu man man oustaz joki mën dulu amul aleykum salaam Dulu amul boo na Bayar jam. baa yéen jàmm ah waaw ba Jam jàmm ah man de ab benn waay yàlla la rek waay yàlla hmm. yokkal sa baat dégguma la wax de ma ab la aha man de ñetti fan ak nii damay wóor mais tàndarma bu sax ko am ñetti fan nga Nyetifan. lekkoo ko. ñetti fan kay. tàndal ma dongul mënu ko am. Mm-hmm. Mm. te damaa bàyyi ay xale yu ndaw kër di ko de. demo. suñu waxtaan wa ñëw na de. Bismillah. waxtaan la doon démb mooy tey. waxtaan daa ñëw nii. waaw. bisimilah. Yang jërëjëf suñu borom dawla. jërëjëf booy. yéen a teggi jafe-jafe fay la. teggi ganna na lepp lépp laa gën nañ lekk ba suur la dañ dembu moy tay léegi nu may nu dox su ma deewoon sama dina lérna lima féké tay li nga war am ci ab yool ay eh, bu doon man la dupré duma jaamatu suñu borom ah lañu ñu ci taxaw li ñu taxaw julli bismillah nenañ julli julli ko am dara moy def moy julli imam ha ku biram am dara moy julli baal ma ko rek gëm nañu yoon xam naa moom tey moom. mën nañ julli waaye sëñ bi waaye waxtu jot di. caam imaam duñ julli. damay bañ ñu naan dukkure. waaw am na lu xew suñu diggante maa imaam ah, loolu yeewi naa la maa la woo loolu. yeewi naa ah. <laughs> daal. kon nag bàyyi mu dem teewee jàkka ja ndax comme que suñu borom loolu mën na toog moom ci jàkka ja moom <laughs> maa ngi dem rek ba yoon. waaw jërëjëf li nga def tey rëy na yàlla macha allah. li ma def rëyul li nga nga xam-xam bu rëy ah. maa ngi dem sëñ bi dégg nga jërëjëf macha allah problema nenhum. E é a única no louco. Nhombre. Nhombre. Nhombre. Ah.